lamb ji man mënu ma ci nekk di féete mooy li may faral di wax rek ndax bëri naa fi la façon bu nekk sama supporter ñoo ko soxla woon jël nañ ko jox naa leen ko waaw. ñaar ñuy daje tey ku ci ne daje nga ak ñoom laat xam nga leen te est que sa ambition dafa nekk ci ñoom ñaar ku daan daje ak yow. waaw moom mooy indi nag sincèrement par loolu mooy indi ci lamb ji. kon defante la indi. ñoom ñaar ñoom ñoo ma indi te ku ci daan soxla naa la. ku ci daan waaw gis nañu tey ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène daf Lo ngeen bëre yéen ñaar hmm. kon tey jii ñoom ñaar ku daan soxla nga ko waaw ñoom ñaar ñëpp loolu ma indi tey moo ma indi tey ci ji ñu fas yéenee bëre bu ñu bëre ku ci daan maa ngi fi taxaw mënuñoo rëcc xanaa ñoom ñu teggi mënuñoo rëcc ngeen jàppale leen